fédération daayira Maam Jaara yi nekkee ci dakaar ci njiital soxna Maam Jaara Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñoo ngi wéyal liggéey yu am solo yi nga xam ne ñoo koy amal ci daara Maam Jaara ji nga xam ne moo nekkee ci Poroxaan ginnaaw liggéeyu bâtiment bi nga xam ne dañ koo jagleel jàngalekat yi muy seeni dëkkuwaay fédération bi soobuwaatoon na ci yeneen liggéey ginnaaw woote boo xam ne amaloon na ko ci ay plateau de télévision mu mel ni mbokk taalibe yi wuy si nañ ci liggéey bi am na ci sax ñoo xamante ni jotoon nañoo jaayante ngir liggéey ay dortoir muy dëkkuwaayu ndongo yi nga xam ne ñoom ñooy jàngee ci daara ji dortoir yooyu nag am na ci ñaar yoo xam ne jot nañoo noppi muy ñaari bâtiment yi nga xam ne moom ngeen jàkkaar lool di ay R plus 1 benn bu ci nekk am na fukki néeg ak ñaar soxna maam jaara Mbacke di njiital fédération daayira maam jaara yi nga xam ne ñoo nekkee ci dakaar àndoon nag ñenn ci waa fédération bi ñu ñëwoon doon jébbal caabi yi waa daara ji. liggéey la boo xam ne it niñ doon woote adduna yëpp di ñu dégg ñuy woote ci télévision yi di def ay plateau di woote ay émission jaayante jaayante googu bokki taalibe yi ak ñi bëgg lu baax ñëpp suñu borom defal nañ ci tawféex ba am nañu dégg ba wax dëgg yàlla bay nañ ca seenu seenu sas bay bu yaatoo yaatoo yaatu. liggéey boobu nag lañ ñëw ngir jëmmal si ko tey am na yeneen i mbokki taalibe yoo xam ne ñoom itam yàlla dogal na jaayante woon nañ ci liggéey bi ñoom itam lépp ànd ko fédération bi ndax liggéey bi kat dañ ko nose noo xam ne lépp lu fi waay di liggéey ci ndigalul fédération bi ñoo lay gunge ci seeni i ci seen i plan ak euh, accompagne la jàpp leen la wan la liggéey bi ni ñu ko bëgg nga ànd ko ak ñuñ te mbokki taalibe yi loolu suñu borom dimbali nañ ci ba ñu ngi ko ànd ak ñun. dortoir yi nag muy dëkk dëkkuwaayu ndongo yi lu daara ji yittewoo woon la ndax bokk na ci lii gën a ñoŋal seenu nekkin ci daara ji waaye yokk lim bi nga xamee ne it daara ji mën na koo jël ci ay ndongo. moo tax mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo yor daara ji sant nañ bu baax a baax fédération daayira maam jaara yi nekkee ci dakaar ci njiital soxna maam jaara Mbàkke bintu cheikh Mouhamadul Muntaxa ci seen yéene ci daara ji nga xam ni seen loxo du ci jóg mukk saa su ne ñu ngi jëf ci lépp loo xam ne day jëmale daara ji kanam ak lu koy taaral. di fi jot jàll lépp ci li ngeen liggéey doon na loo xam ne benn bu nekk rek te ngeen ko ci xam-xam teg ngeen ko ci tamit wax dëgg yàlla pësëb mat sëkk ak yite ji mat sëkk ba mu mel na mu war a mel. kon euh, damay joxe nuyoo sëñ Abo rek Mariane Jaxate mi nga xam ne bu fi toogoon tey mooy jël kàddu gi waaye dafa am ngant waaye tamit boobu ba léegi mi ngi woote ndax yitteel gi ngeen ko yitteel heure bu nekk mi ngi woote di wax ci yéen ak ni ñu leen fonkee fañ leen teg ndax seen pëstéef ak seen liggéey bu sell kon mu ngi leen di sant di leen gërëm. sab liggéey man li ma gëm te yëg ko. mooy seenub liggéey yéen yaag ñi nga ko àndal ci daaray maam jaara tàbbi na ci yéeney sëñ ba Basiru ju dëggu jam amoon ci def daaray poroxaan mu dib dëkk def ko mu dib jàngukaay sa way jur wu baax wa de tey jii sëñ Moustapha wóor na ma ne xolam sedd na ndax cër yu bari yi mu am ci yow te ku ne yéen ñi nga xam ne sëñ Tuubaa leen meññ soxna jaare meññ leen day képp kuy liggéeyal soxna jaare yéen lay dimbali yéen lay dimbali ku ne taxaw na ne ndax lii sëñ Moustapha dana ko dana ko dana ko dana ko miire sax ndax dana ko def jëlale naa miir diir bu gàtt dootuñu am fuñ samp bâtiment ci biir daara ji soxna maam Awa mat na ma seere bi ko fi sëñ Moustapha di da koo taxañ daanaka fanaanu cib néeg maam jaare yi nga xam ne indi na leen daanaka ci waañ lañ leen fanaanal waaye sunu boroom rekk jaral leb leen ndax du sànq jëfi ku sellal jëf ji tey àgg na fu nekk ci àddina waaye soxna maam taxaa Muntaxa jëf nit ñi yàllaa leen moom waaye sëñ Tuubaa la leen booleel xol yi faaw nangul la rek lan am soxna maam aw mi mujj na amut fu muy dugal nit te fii rek la am te mënta tuxu waaye diggante bu gàtt suñu borom gunge leen seen yéene ba mu samp tey kon man gëm naa ne lépp lu ngeen samp mu taxaw ndax sëñ Tuubaa leen cay fekk. sëriñ Saalihu Mbàkke moom sëriñ Fàllu moom sëriñ Sohaybu moo nekkoon kilifay jotaay bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbàkke moom sëriñ Basiiru di xalif général des Mourides moo ko boole woon ak soxna maam Jaara Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadul Mountakha mu ànd ak fédération bi mboolem liggéey bi. moom it sant na bu baax a baax ci taxawaay bi waaye gën a soññaat mbokki taalibe yi nga xam ne jëf lu baax ñor na leen ngir ñu mën a tàbbi ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy defal soxna jaara sëriñ bi wax na fii ne liggéeyal soxna jaara liggéeyal sëñ ci soxna jaara mooy dëgg dëgg selliiti liggéeyal sëñ tubaa waaw loolu yaakaar naa bi mu koy wax ñun ñëpp dégg nañ ko waaw te ginnaaw loolu rek la wër nag mi ngi nii kon képp koo xam ne tàbbi woon nga fàtteel loo ma sa def te xool ci sa kanam fexe ba lu sëñ bi bëgg rek na ko am sëñ bi nag li mu bëgg faaw da koy am moom loolu yàlla noppi na ci yàlla defal nag ko ba noppi tàbbi ci biir di jéem a yéwénal di jéem a góorlu ba far ci defaroo wala safaan ba te safaan moom ñaar ñu ko yàlla yàlla ñu ci yàlla musal waaw kon soxna jaar ñu ngi lay seeralaat suñu pëstéef ak sunu yitte ak sunu fas yéene laxasu ànd ak yow liggéeyal sëñ Tuubaa ba ba faaw rek ba keroog su li feeg suñu ruugi daal mu ngi taq ci suñu yaram yi fas nañ ko yeneen ah, te képp ku nu xamit wala mu man wala ñu man ci moom dara danañ fexe ba mu ba ba jëm cee doon dara ndax liggéey bu ñu nangalu ba noppi képp ku yàlla naral ndimbal rek ci àdduna ak alaaxira dana la ci tàbbal te danga ci jëf. liggéey bi nag amul taxaw moo tax ginnaaw bi ñu jébalee caabi dortoir yi ba noppi ci lañ sóobuwaat ci saa si tegaat xeer wu njëkk beneen dortoir boo xam ne moom lañ fas yéenee liggéey. lépp di liggéeyub fédération daayira Maam Jaara yi nga xam ne moo nekkee ci Dakar ci njiital soxna Maam Jaara Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ànd kook mboolem ñi nga xamante ni jëf lu baax ñor na leen. ñu teg xeer wi fi jàkkaarloog ñaari dortoir yi nga xam ne ñoom lañ jébbale seeni caabi. rabbi stajib liya wasalli bisalaam ala nabi bil ali wa sahbi alkiram amina ya rabba sama wal ardi lima lahu awsaltu xayra xardi amina ya mubdi u ya muayidu ya man bihi minhu lahu naudu amina ya rabbi bi hurmati ljidal bi hurmati alqurani wakfini aljidal amina ya rabbi wa asim umri fika wa bilmuxtaari kulli amri amina ya rabba alwara bila kadar aw afatin ya قياما به جل القدر آمين يا ربي بحق وجهك واحدا ليس يرى مسبك ربي أجب ولا ترد دعوتي بجاه شيخنا الخديم قدوتي am na it beneen dortoir boo xam ne door nañ ko ci wet gi waa fédération daayira Maam Jaara yi nga xam ne ñoo nekkee ci Italie ñoom ñoo ko fas yéene liggéey ba mu àgg lépp ñu ànd kook soxna Maam Jaara Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadul Muntaxa soxna si nag di sant mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi ak mbooleem ñi nga xam ne saa su ne duñ dañ di ci jàppoo ñu mboolem fédération daayira Maam Jaara bi nga xam ne moo nekkee ci Dakar daayira Maam Jaara yu BICIS yu université Cheikh Anta Diop daayira Masaalikul Jinaan bu Touba Montpellier Samba Ndongo di géomètre ak mboolem équipe technique bi sant bu baax it waa Fram Voyage ci seen jàppale jëme ci mboolem déplacement yu fédération bi soxna maam Jaara Mbàkke bi mu ñëw nag ci Poroxaan jot naa jaar ci dëkk bi nga xam ne moom moo di naawel ànd ak ñenn ci jëwriñu fédération bi dem ziyaare ji barabu soxna maam asawaalo amal fay ñaan ci ay ndam yoo xam ne saa su ne danañ ko am ci liggéey bi ñu soobu ci daaray maam jaara ji